yaa Seex Asan sab soppe moo la way di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuuba fa yàllaaw ak sant yaa Seex Asan sab soppe moo la way di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuuba fa yàllaaw bur yàlla jéggal ma mboolem zan bu yi ma fi def hamdan wasawan ba biir bis peñ bur yàlla maa ngi dagaan ci barke Seydi Hasan salaam waafiyatan ak barke yàllaawu alhamdulillahi rabbil aalamiin sëriñ Hasan salaam ku la bañ dem naari yàllaawu saa xol bi jox naa ko salaam mi ma xam ndax yàlla tabal ma fi jannaati yàllaawu xam-xam bu sell ak sañ-sañ bu ba mu am du tax mu naa naagu ba mooy bur yàlla yàllaaw haa kent yaa seex asan sab soppe moo la fi way di ñaan ci barkeb sëriñ Tuuba wa yàlla ba muy xalel daan def kéemaan yu rëy ñu yéem ba waajuram jaaxle woon ba yee muy ñu jël ko yóbbu ci sëñ boo xam ne man na miram ñu dem baag mu jaaxal sëñ ba yàllaawu keroog la sëñ asan keroog la sëñ ba def ñaanam ba bind ba teg danañ ko jox sëñ asan cey booba yàllaawu ñu jël yóbbu ci sëñ boo xam ne mën na mbiram ñu dem jommal sëñ ba yàllaawu keroog la sëñ booba def ñaanam ba bind ba teg ne nañ ko jox sëñ asan cey booba yalaaw sëriñ asan daal ne leen sëñ bii de lii mu ma jox du doon lu may jël di naan lii wóor ne yalaaw mu daal di wax wax ju joo xam ne yéem na sëriñ ban yóbbu woon sëñ asan lii leer na yalaaw mu naan ko xam naa la lool yow mii de yaa xamul gis naa la baabul xunóot ci yàlla yàllaaw man bokk naa ñala doon faral keroog sa kurus bis ban daggee maa nga woon foofee fa yàllaaw banaa fa yit jaaro xaalis boobu ba léegi itam jalaatuma yoon ci jël loole fa yàllaaw mu dal gàgganti sëñ boobee ci lim ko bindal sëriñ Asan ko ay njumteem fa yàllaaw mbër ma nga déggoon mu doon bàkkoo ka jaayu keroog mbër mooma man mii la maa doon bàkku yàllaaw su jaajatun ak su jaaja jooja mooy la ma doon biral ca diiwaan keroog yow xam nga yàllaaw sëriñ ba wax sëñ asan ak way juram wa keroog jóg leen te dem yéen fu ngeen xam jëm fa yàllaaw man maa ngi doon nëbbutoo kay làkk man li ma doon tu tànk bi bëgg ma feeñal fa yàllaawu man maa ngi doon nëbbu too koy làq man li ma doon tu tànk bi bëgg ma feeñal fa yàllaawu kéemaan yu rëy yi ba muy tu tànk moom la ko def yàllaa ko baddil ba muy xam boo ji yàllaawu ñu delluwaat toog faat diir mbir yee tàmbaliwaat ba waajuram jaxlewaan ngir yee muy yàllaawu ñu dellu jël sëñ Asan yóbbul ko Seex Ibra Faal mu wax fa baatin bu rëy lii na yàllaaw Seex Ibra wax waaye juram loo xam ne ëpp na xel war maal ko kii moo baatin la yàllaaw Seex Ibra wax waajuram loo xam ne ëpp na xel warmaal ko kii moo baatin la yàllaawu waajur wa jël sëñ bëggoon ko yóbbu feneen sëriñ asan daldi koy laabiire yàllaawu sëriñ asan man ko naan yow lii ma yàlla defal xam naa ko duy rabte gul jaaxleeti yàllaawu sëriñ asan naan ko santal lii la defal ngëneel lu rëy la ci yow wallaahi yàllaawu kéemaan la kéemaan man la buur yàlla ñu seede sëriñ Asan salaam ngir mu ñëw sellal ñu yàlla ba muy xaleel daan na toog rek dal ne mes ne ca kaw nga xool ca kaw asamaaw gis leer ya yàllaahu moom daan na fekk ku bàmmeelam lëndëm ne kurus mu ñaan ca bàmmeel ba leeral lépp yàllaahu moom daan na fekk ku jëm niiraan ñu jéng ko faf mu yóbbu waa jooja fil jannaati yàllaahu moom daan na fekk ku taa am doom ba foog ne du am mu ñaan boroomam mu am doom leer na yàllaahu moom daan na fekk ku def bàkkaar ba gis mbugalam mu teg ko ci yoon ba koo kay jaam yàllaahu nawet bu nangu nga baykat yépp a ngi di ñoral saktab de semmal na wax set leer na yàllaawu nawet bu nangu nga baykat yépp a ngi di ñoral saktab de semmal na wax set leer na yàllaawu léeg-léeg nga gis waaju naan bur yàlla lim ma defal te doo ca bët li may wax leer na yàllaawu sëriñ Asan saa bur yàlla lii ma may say bët da cay tege ngay gis leer na yàllaawu du wër di laaji alal ku ñëw moo dimbali la yaay jantu njolloor danga nañ yàlla du wër di laaji alal ku ñëw mu dimbali la yaay jantu njolloor danga nañ yàlla yaa doon du xiisam nu Maryam wuutu woon nga jëmam ba yàlla yéegal la ay at wóor na yàllaawu yaa doon zeydum na xaaris sëñ asan ku la xam du ak yow ne yaay kéemaani yàllaawu yaa doon daawuda ak baatam bu neex ba mu yor ba yàlla séddalaam daawuda yàllaawu sëriñ asan saa su daan way ba dënam ba di riir neexaayu baatam dalay jox leeri yaa doon muusa ca xar baaxam yu rëy ya def ba yàlla Muusa fa yàlla woon yaa doon lu Seex Bamba ngir sañ-sañ bu rëy bi nga am ci njabootam ku dul Seex Bamba yàlla woo maanoo digal Seexuna Seex Faalu ak na mu doy mu jëf ndigal loola ngir baatin ba yàlla mënoo digal sayxu naa seex fàllu ak na mu doy mu jëf ndigal loola ngir baatin ba yàllaawu diggante seex xasan ak seex fàllu ak la ca xew man xeebu naa wax ca baatin boo ba yàllaawu yow doon ngay mbóot ci sun mam aadama ci mbiram yàlla na turam nga am doon leer ay mbóot la maam aadama ki yàlla njëkk a mu ñëw ci duniyaa di leeral jaamu yàllaaw seex bàmba yit bam jotee ndigal ci buur bi ñu moom maam aadama njëkk a ñëw jaayante yàllaaw sëriñ asan bam dëddoo yit bopp ba léegi itam seex mboor ma yàllaaw sëriñ asan bam dëddoo yit bopp ba léegi itam seex mboor ma yàllaaw malaayika ak jinne ak yóoneel yi xam nañu la gàncax gi xam nan ne yow yaay waayu yàlla malayka ginne ak yoneen yi xam nañu la gàncax gi xam nañ ne yow yaay waayu yàlla sëriñ Asan yaa géej tey géej gu fees ak mol bu la moy mbal ga sooy wallaahi serigne asan yow sa ten bi ndox mi mukk du de ku ñew da ngay rot ba fessal leer ne yàllaaw bu ñëpp rek maase won tay gestu yow ci sa mbir lu waay saxoon yàbbi lolé saf nga yàllaaw bu ñëpp rek maase won tay gestu yow ci sa mbir lu lolé yow saf nga gu ray gi imam ci sañ asan ni mu doy ay nattukaay mënu ko xam wóor na yàlla coofeel gu rëy gi ma am ci asan ni mu doy ay nattukaay mënu ko xam wóor na yàlla kon maa ngi ñaan nag ci barkeb Seexu Bamba bu wér way wi na doon ay nga ne ci barke yàlla sëñ Asan moom lam ca wax yéeme na lool déglul bu baax naa la ko wax seetal ma fas wi sëñ Asan moom lam ca wax yéeme na lool déglul bu baax naa la ko wax ca géeju Gueule Tapée la sëñ Asan Salaam doxantu woon ba gis fa lii cay fu nu jëm ca géeju Gueule Tapée la sëñ Asan Salaam doxantu woon ba gis fa lii cay fu ñu jëm aw fas wu yooyu ñu teg fa ñaari beñ waar bii def na ndox bii def na ngooñ dañ leen a ber aw fas wu yooyu ñu teg fa ñaari beñ waar bii def na ngooñ bii def na ndox dañ leen a ber mu lekk ngooñ ma moom ba suur dellu ca beñ waar ga defoon ndox ma moom te def ko añ mu lekk ngooñ ma moom ba dellu ca beñ waar ga defoon ndox mooma moom te def ko añ mu siggi xool ca kanamam gis genn kër kër ga juróom ñetti tabax la ñang ko deur ak ñaari tàndarma ca kër ga moko mom deglul bu baax tay ndax ga tiit ci suñ boroom kër goga ay dooma maki jarbaatam ñoo fa dëkkoon te ta wax ci baatam mu len di gis te mom manul wax ak ñoom ndax fas la bur bi yalla ma yéem gis ko yaram ko dem te mom fas wana ko jegalul ma suñ boroom sëriñ Asan gis ko yërëm ko dem ca moom fas woo ko jéggalul ma suñ boroom daat koy xamal ni doomu aadama la woon jugi su fas jënd ko man fas wi la woon ma koy dawal cib kursu bam mat ab sareet ma ko di ko dawal def ko sareet képp ku yor bagaas ma woo ko moom mu ñëw ku yor bagaas woo ma man ma dal di ñëw képp ku yor bagaas ma woo ko moom mu ñëw yor bagaas it wooma man ma dal di ñew ma yek ca fas wo bolé ko bagaas ya jant ba tàng lool ma bolé dor ya ma yek ca fas wo bolé ko bagaas ya jant ba tàng lool ma bolé dor ya ta fas wa nangu lool sañul di bañ digal te man ma lank li ma bor yalla digal mo tax ma faatu yalla jël sa jëm ji dal di ko jax fas wo man ni la mujjé moo tax ma faatu yàlla jël saa jëmm ji daal di ko jox fas woowa man nii laa mujje fas woowa it la jël jëmmam ja jox ma ko moo tax ma nekk fas salaam yow xam nga ko fas woowa it la jël jëmmam ja jox ma ko moo tax ma nekk fas salaam yow xam nga ko maa ngi janoog sama njaboot ma leen di gis te man samaw làmmiñ di wax lii doy na tiis maa ngi janoog sama njaboot ma leen di gis te man sama làmmeñ du wax lii doy tiis mu dem ca kër ga moom sëriñ asan salaam wax ak njaboot ga moom sëriñ asan salaam mu daan ne leen fas wii de seen wayjur la woon yàllaa ko nattu ngir ci jëf jum fi jëfoon fi daaw leen ko suñ borom jéggal ko mu daal di wax sarax njaboot ga génne ko fi daaw leen ko suñ borom jéggal ko mu daal di wax sarax njaboot ga génne ko bis bañ ko génnee rek la fas wa faatu yërmande bur bi yàlla rek a yaatu bis bañ ko génnee rek la fas wa faatu yërmande bur bi yàlla rek a yaatu sëriñ asan noon na bu fas wi faato na ngeen ko denc fii mu dal di faato sëriñ asan noon na bu fas wi faato na ngeen ko denc fii mu dal di faato moo tax sëriñ asan ne xool leen suñ borom jëf ji mu jëf lii na tax ngeen war ma gëm saa dem gi ak dellu si gi yàlla ko def yow bul ko miim kewel du tooñ gaynde gu xiif saa gi ak dellu si gi yàlla ko def yow bul ko miim kewel du tooñ gaynde gu xiif saa gi ak dellu si gi yàlla ko def yow bul ko miim kewel du tooñ gaynde gu xiif déglul ma wax ay njariñ ci sëñ Asan salaam lu tuuti ngir nga xam ci Asan déglul ma wax ay njariñ ci sëñ asan salaam lu tuuti ngir nga xam ci sëñ asan sëriñ asan nee na ma sonn na nekk jaam madinatul munawaral la doone jaam sëriñ asan nee na ma sonn na nekk jaam madinatul munawaral la doone jaam yonent bee ko jënd moom ci alalam defoon ko njiitu xare kii de mooma drapeau ba mo ko yoron don sen yit jam nañ ko xeej ci far te di mas la xare ba mo di mutatam bolo manew ci lañ ko fo fa la jaare nek new bur yalla yéege ko mu dem ba samaaw mu defa dir bu yag dal di doora ñew mbar ma tuddoon zeydum naaris moy serigne asan salam mo fi ñëwaat di sun serigne an ma sëriñ Tuuba di del si ay allah jox ndigal serign Asan salam. nee na jëfal na Bamba ñetti junni at serign bi doora feñ ba ñi man ci jot serign Asan deneena li ko yalla may romb na ay kayit salam nee naa ko cey xel muy xalam xamul li buur bi yalla jox serign Asan salam te mom rek la ko jox lum masa wax lum yàgg-yàgg ding ko gis yàllaa ko jox kas fu salaam yaa sori gis bis bim gënee àddina rek la yàlla jox sayidina xudar garaat bi mu ko jox ilmu diraaya mooy garaat bim njëkk a jot ca lay gisee gis-gis yu raw gis-gisi bët képp ku sëñ asan salaam masaana gis xam na xam ci lu raw li bët di gis xol bu lëndëm ak xol bu leer bu mën a doon sëriñ asan xam na ko moom la yàlla woon gis na ko gis bu mel ni ab biteelu weer boo sotti ndox li ne ci biir lépp ko leer ni muy janoog nit ñi ni lay janoog itam malaaka ginne yi kii ami ndam saa waxaan malaaka maa ngi jël si nit bu néew ñu tàgge ko ka moo kamat xilmu la dal niyoo di ko mottale ca xame lii ne ci suuf liñ umpale almer yu sëñ asan salaam masaana dem wax na fa wax ju leer te wóor jun mën gëm képp ku ñuy mbëggal mu jéggalul boroom yërmande jaa bari salaam amoo moroom képp ku ñuy mbëggal mu jéggalul boroom yërmande jaa bari salaam amoo moroom waxoon na fii ci réew mi pétrole baa ngi fii waxam ja na léegi ndax gis nañ ko fi waxoon na de am na fii ci Sénégal nañ ko tey kii moo ko jar di dundam gi yëpp ñetti xaaj rek la ko xaaj wéetal boroomam la defoon muy benn xaaj fu mas dem ci sëg yi fanaan loolu ba muy xalel la kii mooy ñaarelu xaj ba moy ku génn adina te def safan ba mom ma genn aduna dalay tinul bur yalla bam jegal tabal tabbal salam firdaw begle salaam suñ mbég la na yit pamel bu am ay ati at mu laajte mbokki kooka mom bate ko bat wax len ci mom ak moy gu gum ma sa def jox len ci mom tektal yi ne nañ ko def fanweri at mom la ko def ngir yermandem njëriñ la woon sëriñ asan kii moo ma yeem xaajam bu mujj bee di képp kuy dund mu won la yàlla may la aw fan wu gudd saa su masaana jóg ba génn biir këram xettali jaam ñi rekk ba ñépp am ngërëm saa su masaana jog ba génn biir këram xettali jaam ñi rekk ba ñépp am ngërëm képp ku tudde doom sëriñ asan salaam àjjana firdawsi da rek moom la jëm sëriñ asan neewoon na moom ay turandoom saa su duggee ñooy ay wettalam woyaf ga ak dalam ga ak mbaaxam ga taxoon na mas la dóor te mas saaga woyaf ga ak dalam ga ak mbaaxam ga taxoon na mas la dóor te mas saaga moom mas mer xuloo itam ay mbiram dimbali jaam ñi rek moo ay yiteem Seton na labon na te xet ga neex na lol ñaqam walat ko la ñu misk lay indi lool sañ-sañ ba yaqul dara mum ke sunna sa batin bu rëy ba yaqul it zahir sa dawul fawe di jëf bi da mba gàllaaj lum sa xam yalla ak yenen rek la ko laaj Asan bis bim juddoo la ñeek wax ak wajuram bu baax wa mom wax serigne asan bis bim judo la kawah, wax ak wajuram bu baax ba mom mo ñuko wax bañ ko ëmbé tam nekk mom ci biir ndayam iblisa soppi ko di jaan song ndayam mu daal di sab ak melax ndayam taxaw jaan jene puttu daal di dee xamul li xaw bis bim judo la kawah wax xibaar ba wallahi asan salam la zanba ba bis bim judo la wax ndayam xibaar ba wallahi sëñ asan salam la zanba neena ko ma genn keroog dal di ko rey dugaat sa biir iblis la woon bëggul ma xëy am na ca mbir yoo xam ne meñ du ko laal am na ca mbir yoo xam ne ko misaal sëriñ asan garab la wuy faju wépp demam ga rek laa di jooy ngir mooma tiis fépp fu waay masa taxaw tudd turam ci adduna am ku ne kii demaa ko xam fépp fu waay masa taxaw tuddoo turam ci adduna am ku taxaw ne kii maa ko xam fépp fu waay masa taxaw tuddoo turam ci adduna am ku ne kii demaa ko xam tudde na doom saalihu sëñ asan salaam tudde muhammadu sëriñ doom abbas sëriñ asan salaam tudde na haaroona sëriñ asan salaam tudde abdu salaam sëriñ asan salaam tudde na miqdaar sëriñ asan salaam tudde abdu jamil sëriñ asan salaam tudde na doom daawuda sëriñ asan salaam tudde na doom muusa sëriñ asan salaam tudde na doom hiisa sëriñ asan salaam tudde na doom aadama sëriñ asan salaam tudde na seex bamba sëriñ asan salaam mason na toog ci ab jotaay am ko fa jaar bi dal ne ana ko xam waa fi jaar mason na toog ci ab jotaay am ko fa jaar bi dal di ne ko xam waa fi jaar am ku ne man mu dal ne woo leen ko mu ñëw am na ku jóg dal di fexe ba waa ja ñëw asan dal ne ko te xam nga ne ñoo nga la jéng sawara ba ngay gone waa na yow de lii nga wax de moom amul mu ne ko am na kay ne yàlla ma xamal te boo ma dégloo na la wax lii ko waral waaja ne bismillah waxal li ko waral mu dal ne ko ba ngay xalel sa néegu ndey duggoon nga fa fekkoon nga fa kii di sa ndey mu sàgganu nga ñëw dugg gis awraam keroog la waaja kiit ba daan ne yaa salaam lii nga ma wax mag yàlla rek ñoo ko xam mosuma ko wax kenn yow noo def ba xam sëriñ asan dan ne ko bur yàlla ma woon waa jaxle lol lool tanan ko yaa fi man foofa jaare jàpp sëñ asan salaam fonk ko lool ba tax mu nan ko yaa salaam yal nañu yàlla may ci barke sëñ asan njéggalu bur yàlla te natt buñ ko seen ndax moo ne mooy njariñ wu àndul aki Salam may ma texe te bum malor kep ku deg way wi nang ko yok ñaan mu andando señ señ bamba ak sunu yonen ak képp kuy soppeb señ asan salam ak turando ak doomi señ asan salam ak talibem ñu dal di tabbi biir jinan njabot gi it ni ñepp dal di gudd fan amin amin nelen ma amin, ci barke ya rasulullah آمين آمين نلن آمين تبارك يا رسول الله زميلا